asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 25 août 2020 ñoo kin ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi nag tey moom géejawaay la xëy dugal ñu fa li mu ñu andil nag wala ki mu ñu andil du kenn ku ne ki nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 moo xam ne mu nga yor ay sengooram di tuus yëglikaay bi nag dafa ñëw ci fi nga xam ne jaar na fa ak li nga xam ne nii lan moo ko desale ci yëglikaay bi di xëy di samp di ko laaj ndax li tax mu laaj loolu ne na Balla Gaye numéro 2 bu dee moo loola da koo si côté ba moo ko wax Yékini mu détrôné ko kii di Mohamed Ndaw Tyson ma nga xam ne idolam la Balla ñëw humilier ko ku ci nekk daal fa mu jaar yow yëglikaay ba ñëw na ci moo tax sunu lamb nag xëy sampab laaj na kon Balla Gaye numéro lan moo ko dese ci lamb làmb ndax nag daa lu baree baree bari ca la mu waroon a def daa mel ni def na ko ci làmb ji mu mel ni nag Lamine Samba moom nekk fa nga xam ne moo la mu xam ne daal nee def dëgg la waaye am na lu des de Lamine ñu ne ko loolu mooy lam mu ne diggante ak Eumeu Sène mi nga xam ne da koo daan ñaari yoon nee na Balla Gaye numéro 2 bu bàyyee làmb sax te fayu loolu du neex ci moom nee na même boo ko fayu kon cent francs sax bés boo ko ne yàgg Eumeu Sène da koy nangu ndax nag nee na la mu ko def moo tax Lamine Samba ba tey ndam loola wala boog defet booba naqari na leen waaye mbiram ak Eumeu Sène daal Lamine Samba moom jàpp na ne kii di Balla Gaye numéro 2 moom loo ci mën di dégg mu bëriwaat ak Eumeu Sène donte waxoon nañ ko Eumeu bàyyi ko fa dem bëri jég Modou waaye nee na Balla bu fekkee am na lu ko dese nee ñaari mbir yooyu dong lay doon yëglikaay bi nag ñëw na ci moom ak palmarès ba nee na 21 victoire Balla Gaye 2 def na ko am lu toll ci 4 défaites yoo xam ne tëgg na ko wala combat yoo xam ne ñeneen tëgg na ko teñ na ay lobé nga ca ginnaaw bëgg koo jaxase yàq mbir ma Pape Thialis na nañ ko tàyyi te toog maanaam loolu ñuy def moom bu ñu ko jéemee itam seen bopp dong dong la ñuy ndax du mën ne ndax jàpp na ne moom la mu wax da koy def te commencé na ko ñim ko séqal ku ci ne la mu war a séq ak yow commencé na ko te dana ko continuer kon nee na ñu bëgg a yàq combat Tapha Tine Boy Niang wala combat wu Balla Gaye numéro 2 Gris na ñu dem la ñu ñu réew mi a baax loolu mooy waxi Pape Thialis Faye tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb keneen koo xam ne ni moom duggoon na ci làmb ji daaw ñu koy wax petit production yëglikaay bi ne ba mu ñëwee itam fëggoon na bu baax a baax buntu bi moo tax nag ne nag dikkaat am leneen loo xam ne dana ko indi ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb ki nga xam ne nii nag mooy Khalifa Niang di président wu Tay Sing moom ñëw na ci mbirum CNG ak ak jàpp na daal ne moom a jóge war ta jóge fenn fadul ci ñi nga xam ne nii ah maanaam daal ñoom a moo di CNG bi bu ñu continuer ba tey ci yëglikaay bi di sunu lamb la moo xam Leewtoo point la bu fekkente la moom jamaïcain la muy dëggal nee na daal li am ba des moom li am mooy mook Double Tyson signé nañu ay contrat jox na ko xaalisam te itam jàpp na ne moom lum ko mbir yi jaral dana ko ko ëppal loolu wax ci Leewtoo point net yemu ca bu ñëwaatee ci sunu làmb tamit jamaykee mu ngi fay wax neen làmb ba des daal fi mu jëm ak kii moom loo ci mën a dégg mooy procureur moo leen di àtte ji ndax nag ne na la ñu dafa leer nañ te nee moom la mu signé ak moom du ko xotti mu koy bàyyi mu koy sedd dubul tay ne ko bu la neexee ndax nag réew mi am naw yoon yow kay loolu say droit demal ca yoon bu la neexee yoon àttendu loolu mooy waxi dubul tay leen di coow la nag a bëree laa ngi ne dëgg fi nga xam ne moo di tey ci yëglikaay yi ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb dan fay des de fa nuy ñëw nag mooy écrit kaay baax écrit ba nag moom daa mel ni wuyoo nañu seeni tur ndax boo bëggee dégg-dëgg seeni mbir baax na ba yegg ca lool 15 victoire la ñu def 3 défaites te saison ba taxu tax yëglikaay bi jàpp ne ñoom day bu leen neexee yëkkati seeni loxo bu baax a baax ca kaw am na ay mbër yoo xam ne nag engagé woon nañ leen waaye jotunoo bëre moo xam doomu jalaw la ak arobas ñoom daal dañoo mujj sommet loo ca mën a dégg nag engagé woon moom defoon nañ leen ko am na fa ñoo xam ne itam daal am nañu ay victoire yëglikaay bi ñëw na ci ñoom mel ni ki petit ki nga xam ne moom moo di Mbay Fall ak petit Baay Fall xale yoo xam ne daal yu jar a bàyyi xel lañu waaye am na ñoo xam ne ay déception lañu ku mel ni Pape Socé Papa Sow 2 ak Boy ñi moom ay déception lañ ci écrit waaye Valdo 2 ak ki nga xam ne moo di Modou Lo ak doomu Tëngéej ak caatu limousine tamit ñoom it ñëw nañ de waaye Aboy ak petit Kona itam daal daa mel ni ñoom itam ñu nga ca kaw a kaw di wane seen bopp bu baax moo tax nag Ahmed Konaté ma leen yor daal moom jàpp na ne lii ñu ci bilan nee na la boo xam ne neex na ci cim xol lool lool lool moom daal loolu la xëy tey ñëw di ko wax bu nu jógee foofu nag dañuy dem fa nga xam ne moo di ca Leewtoo point mel ni kon daaw daal soo bëggee dégg-dëgg gala ANPS ba nga xam ne amoon na fi te Modou Lo ñu neme woon ko mbër mi dàq bëri ci wàllum lit frappe bi général Malick lit simple bi mel ni ki ñooñu moom seeni couronne dañ koy continuer di ko téye ndax nag ren moom mbir ya am moo tax nag boo bëggee dégg-dëgg daal mbir ya kenn du ko donn kon ci ñoom l'observateur nag moom tey mbër yoo xam ne dañ leen a dóor ñu daanu ñoom ñoo xëy tey ñëw di wax kaw ya ba mu leen dalee la yëg bis moom ne na bañ ko dóoree kuu moom ne a ba ko mu a fëggee kuu ne kuu ba moom loo ci mën a dégg mettiwaay ga foo ko takk weesu na ko moo tax ne moom kaw a daal la def waaye yemu ca bëñ bu damm la ca mujj a jële Elton moo wax loolu ci yëglikaay bi nga xam xam ne moo di l'observateur ñu jóge fa nag dem ci rakku lobs di record record moom ñëw na ci mbirum tafaatin ak la nga xam ne nii moo di coup a dégg maanaam a booy ñang ba daa mbir yooyu yépp tey record ñëw na ci waaye yemu ca de ñëw na ci mbir tafaatin tamit ak la nga xam ne mu ngi koy xaar li nga xam ne moo di avance u ba tey yëglikaay ba moom record ñëw na ci lu mel ni ki noonu ba tey mbirum Alioune Sarr yëglikaay bi ñëw na ca li tax daal moom mu bëgg a dem lu dul du lenn lu dul xanaa bëgg a bàyyi ministre bi mu nekk à l'aise daal dara bañ koo seen wala lu koy xatal mel ni ki yëglikaay bi ñëw na ci mbir yu mel ni ki noonu Mamadi Ndiaye itam sunu lamb xëy na tey seq moom Mamadi nag wala boog record Mamadi la mu xam ne daal lenn la ne na lambi faraat ji daal bëgg na ci combat fi mu nekk nii maanaam adversaire daal lay wër lambi simple ja moom kii di gaskeel jàmme ay mbiram doxul ren soo bëggee dëgg-dëgg ndax nag benn drapo benn final yëglikaay bi ñëw na ci moom calam ca jota am ci ab xaalis mel ni ki daal un million yee moom la ca tege bariwul maanaam gaskeel daal ay mbiram doxul moo tax nag jàpp na ne daal saison bii moom mooy bi gën a bon ci ay saison mu mel ni kon daal yàgg soo bëggee dëgg-dëgg l'observateur laay dellu ak ña ñu dóor ñu daanu ñii ba ñu damm lañ ca jële ñii am ay tànk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 ni ñëw nag euh, si jàngatu arène bi ñu commencé que nag ak sunu laam sunu laam nag dafa def nag benn taxaw seetlu. Mhm. ne nag ginnaaw nag bu mu dóoree dóor yu métti ki nga xam ne mooy euh, Modou Lo daan ki nga xam détourné roi bi muy Yékini Tyson moom da ko rusloo maanaam daal da ko def jël bu ñaaw a ñaaw léegi nag lam moo dese Balla Gaye Babacar. waaw loolu la wax tey mu mel ni diggante mag Modou Lo la yëglekaay bi njëkkee ca lam ko def ak fa ñu jaar ñaari yoon moom Balla Gaye numéro 2 yemu ca ñëw. taxaw kanamu Yékini da doon ko nangu couronne roi des arènes bi ci moom mhm. kii di idolam bi di Mohamed Ndao Tyson moom Balla Gaye rëy mu ñëw humilier ko maanaam jël bu ñaaw loolu suñu lamb wax mu mu ne lu ko dese waaw am na lu ko dese waaye dama naan li nga xam ne moo ëppoon doole ci carrière pour man def na ko mm. yaa ngi dégg parce que nekk na roi des arènes ci bi muy am 26 ans su ma mm. daan mbër yu toll ni mu ndax tur yi ñu la wax rek ci làmb nga daan leen sans compter ñu ci des defe naa boo ko defee ci làmb ah boo deful lépp itam li ëpp ci sa carrière def nga ko donte des na ay défi yu koy xaar li Lamine Samba wax nag moom indi na ci xalaatam jàpp na ne am na leneen lu des effectivement parce que lépp mën da mat am na lu des ndax ku ne xam na ne Eumeu Sène daan na Balla ñaar yoon ko ciy bëgg diggante ak Bombardier tamit ku yoo xam ne mu ngi koy xaar bëgg na nekk bëgg na nekkaat roi des arènes téye ko muy ñaareelu yoonam ak yeneen yoo xam ne tey ay défilé yoo xam ne tey ndax combat bi mu jëm moom Gris Bordeaux combat boo xam ne défilé ci moom te yooyu yëpp bëgg na cee ñëw wane ci boppam ba nga xam yaakaar naa daal def na lu bare bare ci am yaa ngi dégg wane ci boppam bu baax a baax ba kenn tey dootul présenté kan mooy Balla Gaye numéro 2 mais nag terewul saa yoo xëyee rek cest combat boo am rek mu nekk sa kanam défi ak loo mënti def rek bés boobu boo ci génnulee day am nu muy nu mhm. keneen ki nga xam nag toujours si ni mooy euh, Boy Niang ak Tapha Tine ñoom jot nañ seen euh, benn tranche beneen tranche bi semaine bii incha allah daañ jot seen beneen tranche bi moom nag génn na tamit di ñaawlu li nga xam ni yenn promoteur yàq yenn combat yi ku si mel ni combat Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ak combat bi nga xam ne moom moo ko taxawal Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine nañu bàyyi li ñuy def xam na leen a ko rafetal daal moo gën daal waaw rafetal soo mi dugg ko marché man de dama naan euh, ñoom promoteurs yi pour man ñoo war a bokk nday bokk bàyyi mm. parce que ñoo bokk réew mi di ay sénégalais bëgg a développer suñu sport bi di làmb di taxawal ay combat la sa morom ne nga jàppale ko ci ba mu réussir ko parce que pour man loolu moo gën mais nag am na ci loo xam ne du ko jar parce que tey yaakaar naa promoteur bi dox combat ficelé ba wax ak temps yu mbëri bañ déggoo ba ba dara desul mu war a génne ay avance xëy na avancé am na ay retard wala na na mu war a génne joxe nañ tranche bi mu des tranche bi ñu war a génne kon defe naa itam est xel dina war a nangu keneen war a jaar ca suuf ngir yàq lool bu dee waxee amee na noonu pour man gënul yaa ngi dégg mbër mi nag su libéré nekkul ci contrat am nga droit dem démarché ji ko dox ko waaye tey mënuma euh, promoteur bu tey Pape Abdou Fall la ngi dox combat ma xam ne mu ngi koy dox ba war ko taxawal ma jaar wala ba déggook ñoom ma jaar ñu su def lu tax ma yàqu ko loolu pour mën gënul mm. wala lig Nicolas di dox combat ma def loolu wala jéey di ko dox wala ku mu mën a doon ci ñoom ah wala Vox Arena lu ci mën a xew daal ñoom ñoo bokk milieu bi nañu fexe affaire yi rafet parce que ñoom ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi encore une fois Pape Thialis Faye na fexe ba indi ko yaa ngi dégg yàlla def saison bi passé ko ren nag mu ñëwaat am lu mu a indiwaat naa ñëpp bëgg ko man nag comme lu may wax rek Pape Thialis Faye micro yi may moo ko moom ak caméra yi yaa ngi dégg waaye nag du tax ma sote ko ay fleur waaye itam du tax itam ma ne li muy def wala boog dañu war a yàq ay journée non yàq bi moom pour man gënul parce que li tax mooy maanaam ñun ñëpp ñoo bokk réew mi nañ rafetal affaire yi te defe naa yow booy wax da ngay wax pour lu abal làmb njëriñ day Kumba Fall man itam noonu laay waxee pour man ak itam lu amal sénégalais yi njëriñ yaa duñ fi nekk tey pour défendre projet bu Pape Thialis Faye wala bu Gaston Mbengue wala bu Pape Abdou Fall wala bu jéewal bu keneen dañuy wax rek pour lu généraliser loo xam ne njëriñu ñëpp lay doon mais loo ci a dégg daal journée yooyu mu Gaston Mbengue la mu dëgmal yàlla na ko réussir promoteur ku ci ne la nga taxawal yàlla na nga ko réussir. Mm-hmm. Mm-hmm. Babacar nag toujours euh, euh, mm-hmm. moom daal neen daal pour làmb jëm kanam daal ginnaaw nag bu Alioune day bàyyi. Euh, le 31 octobre moom lu mu gis daal mooy nee responsable écurie ñoom daal ñoom noo war a mën a jiite li nga xam ne moom mooy CNG. waaw loolu daal loo ci mën a dégg moom Khalifa Niang bëgg-bëggam la wax Alioune moom du demee ak lu mën a taxaw dina am jël place xamuñu nag si écurie lay jógee. xamuñu ministère lay jógee xamuñu fu muy

ñooñu daal refuse ko olaame maanaam ni loxo ya ca kaw waaw loolu moom lu leer nañ parce que kaay baax boobu wax dëgg yàlla seen affaire macha allah tegu na ci aw yoon ndax lii ñu am nii moom pour nga gis écrit bu ko am dina jafe lool 15 victoire 15 ñetti defet ah, ah xam naa daal néew ma ñoom la rek waaye xam naa du bëri daal kon ñu leen di féliciter mel ni kon ki nga xam ne mooy Kona di seen kilifa wax na ca xolam bu sedd ci mbir moom defe naa wax dëgg yàlla lii moom te écrit leer yu leer nañu la Ndeye Coumba Fall Babacar suñu jógee nag suñu lam lañ dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net foofu nag sa xarit sa doomu ndey Jamaïque moo fa nekk moom daal li mu gis daal nee ginnaaw nag ki nga xam ne mooy euh, taxawal na ko muy euh, xoyaan euh, Double Tyson Double Tyson moom nag dégg na démb ne Double dem na tamit Gambie signé fa encore beneen contrat moom daal li mu gis daal mooy neen affaire dina ko yóbbu daal si yoon pour nu àtte leen waaw loolu la gis parce que jàpp na ne ci Leewtoo point ndax daa jàpp ne dañoo signé pour mu war ko bëreel mook Baye Mandione loolu la waxoon euh, ñu xëy xëy gis que ni kii li xam ne mooy Double Tyson dem na ca Gambia signé fa beneen contrat war a bëre ak xoyantaan ka mu signal di Jibal Touré Jamaïcain nag la njëkkoon signal fii loolu nag su amee dama naan bu fekkente ne moom Double Tyson dafa ñëw signé ak Jamaïcain contrat pour war ko bëreel yaakaar naa itam pour man balaa war a mën a beneen contrat pour man ci sama xalaat war na mën a euh, motali a comme nag duñ ci seere ku ci ne ci la nga wax lañ mën a sukkandiku waaye nag bu dee lu am la pour man wuru la mën a demee noonu yaa ngi dégg Gambie itam yaakaar naa ne dem na signé fa contrat comme niñ ko xamee war fa bëree muy loo xam ne daal li ma siy wax mooy eh, nañu waxtaan parce que ñun ñëpp comme li may wax sànq rek ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi jamaykee xale la buy góorgóorlu di am lu mu bëgg si lamb am lu mu commencé di def ña nga xam ne nii tamit ñooy mbër yi tamit kon defe naa ne lu ñuy defante rek nañu fexe mu tege ci aw yoon parce que mbir yi su tegee ci yoon rek ñu noppul mais su tegul ci yoon rek coow ko jar te yooyu yëpp yi koy indi des fois mooy yàqalante beeg te yooyu jaru ko yooyu moom moo amul benn njariñ ku ci ne li nga yéene sa bopp muy mbub moo am ne boo ko solee ndey kumba faal la jot bul ko isee ci yaramu nit loolu mooy doomu aadama kon nañu rafetal affaire yi di wax ne tey Jamaïque moom suñu rakk la suñu xarit la jibal Touré ba signé tamit ak ka nga xam ne nii moom moo di euh, Double Tyson mu bëre bëri xuyantaan suñu frère la suñu xarit la te Jamaïque moom moo tax ñu xam ko mais moom itam wax dëgg yàlla waaju baax la parce que loolu la ñu woon te man Babacar moom ah du mën a kenn yàlla nga nuyu te gisuma ko waaye loo ma wan ci loolu laay sukkandiku jëflante ak yow. Uh-huh. Babacar Leewtoo point net ba tey mu ngi xamal ni ginnaaw na coronavirus bi kii di président ANPS di Abdoulaye Thiam moom euh, moom daal nee loolu dañ ko annulé ba déwén incha allah kon Modou ak ki nga xam ne mooy général Malika dañuy conserver seen prix yooyu ñu gagné woon daaw. parce que comme saison ba yeggul mbir kenn xamul fu mu mujjee ah, mënoon nañ ko def bu leen neexee waaye itam dañuy la gën a jaadu mooy bañ koo def pour man mm. yaa ngi dégg parce que kenn du mer waaw kenn bañ a mer quoi mm. parce que saison bu yeggul ndax coronavirus kon defe naa ANPS ren moom amuñu kenn ku ñuy nominé maanaam ñooñu nominé woon daaw ñoo ñuy continuer conserver maanaam garder seen ay muy Modou Lo général Malika muy loo xam ne itam ñaan yàlla corona bi jeex ba déwén ñu mën a bëre saison bu yegg bu ko defee ñu mën a ok suñu jógee nag euh, si Leewtoo point nañ dem nag fi nga xam ne mooy euh, observateur observateur nag dafa def nag tey kayit bu yaatu benn euh, kayit bu yaatu si mbër yi nga xam ne leen dooroon kawoon daanu ki nga xam ne mooy Boy Kéré nee na bu ko mënuloo daa dooree mu daanu moom daal nee na dafa dafa perdre équilibre maanaam nee dafa tërëf nekkatul daal ki nga xam ne mooy Elton bu ko sulay contre sulay dop nee na daal jël na coup boo xam ne daal daf ko def kawu dëbu bu day <laughs> journal moo ko wax de waaw <laughs> dama bëgg mu leer balaa metti santeeg euh, Elton bis bu nooy moom nee na bu mu jëlee coup nee na ay tànkam si bopp moom la yëgatul waaw loo ci mën a dégg taxaw ci bëre di xeex saa yoo jëlee coup moom yomb ngaa ñàkki tànk <laughs> waaw sa taxawaay moom dootul dëgër te ñoom ñetti comme combat yëpp bu ci ne man seetaan naa ko waaye ku ci ne coup ba nga jël moom xam nga ne bii coup nga jël moom taaxal na ak sa sago ba gis nga fa seeni combat mu waaye ñu dóor la nga kawate ba pare sa bëñ dañ boobu itam beneen gënu waaw beneen affaire la muy loo xam ne daal tey ñoom ñett ñooñu muy Bismi Ndoye muy Boy Kayre muy Elton ñoom ñoo ñëw di nettali ci biir l'observateur dóor yooyu ñu leen dóoroon ba pare ñu jëlee ci ay kaw ah, suñ jógee nag observateur nañ dem na si rakkam muy record record nag moom dafa ñëw tamit si combat Tafatine ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang nee na mi ngi expliqué daal naka la Tafatine échappé euh, benn coup d'état coup d'état maanaam promoteur bi bëggoon suuxlu. pour yàq combat waaw yàq yàq loolu daal moom pour man li ma ci xam mooy que rek jaru ko coup d'état moom parce que coup d'état du lu kenn di apprécier pour man. ak lu mën a xew pour man coup d'état sax sa dafa metti sax de dafa jarul waaw kon day defe naa tafaatin ah euh, bu dee da ko échappé nag maanaam xëy na dafa fonk ay waxam rek mm. kam ko séqal itam ñu fonk ay waxam muy baab cali ba tax loolu mën a am kon daal li ñu xam rek waa non kàddu dara gënu ko kaddu sax moo ëpp solo xaalis bu lay fal kaddu yàlla nañu yàlla may ñuy fonk suñu ay kaddu voilà surtout wallaahi la si que dinaa la wax lenn de julli gi woor gi natt asaka bi aj màkk bi suñu ponk yu lislaam yooyu mm. li muy am amam solo maanaam kaddu wax sa wax fonk la nga wax mhm. da ko day mooy tax loolu mën a sàmm yàlla nañ ci yàlla di dimbali léegi naa nag sëñ Cheikh daan na wax ne wax mu nekk yàllaa ko man waaye man Cheikh Mbacke lu mu wax nar naa ko mm. looy waxati ndey Kumba Fall na nga ko nar waaye man lu may waxati naa ko nar waaye wax naxe wala wax lu dul dëgg yàlla nañ si yàlla musal fen day yëngal aras yàlla nañ si yàlla musal day yëngal toogaay yàlla ba bokk <laughs> Amin Babacar ni mhm. ñëw nag toujours nag euh, si mandaaw Alioune Sarr ñu daal Alioune Sarr daal dafa bëgg dem daal pour mettre à l'aise ki nga xam ne mooy ministre bi Matar Ba bëggoon a dem bu yàgg mais nee nag ministre bi moo ko ñaanoon pour mu toogaa tuuti mais nag léegi jot na pour mu dem ministre bi nag euh, léegi nag moom lay wax rek moom la yor coggal guyam moo yore cëggal guyam xam nga cëggal guy xaw ma ko de <laughs> cëgg xànc la bu ñuy góobee ba war a takki dugub ji bu ñu demee di xànc guy pour ay takkukaay loolu lañ naan cëgg waaw léegi nag comme mooy ra cëggal guyam kon bu ko neexee takki dugg ba moom ministre bi maanaam sa waaw mooy doxal ndax Alioune Sarr moom ku ne xam ne ne kon le 30 octobre day dem eh, ah kon nag ministre bi bu ko neexee moom koo xam ne li si moom mooy nit bu ubbeeku la buy waxtaan la kon nag bu amee te defe naa noonu la koy defee ji na waxtaan nag askanu làmb yëpp composante yëpp bu ko defee ñu xool ki ñu jàpp ni moo gën ñu teg ko fa bis bi am na problème de. waaw waaye nag sénégalais li ci réew mi la dëkk. waaw problème bi moom mënta parce que moom nit ñee ko seq rek da koy waxtaan ak ñoom rek pour man. man nag dama koy jël bu ma ko mënee bu ma leeree sama yàqin ne mën naa ko sama ciraayu bàmmeel waaye bu ma ko mënul nag du ma si dugg moom voilà Babacar nag jeexee nag ak euh, bëre simple bi nag tey nag dafa euh, record dafa dala ki nga xam ne mooy Gaskel Diamé moom daal nee nee na li mu jàpp mooy a bon la def ren waaw loolu da xoolee saison ba ko lépp loolu mooy saison ba fa mu commencé ak fa mu yemee moo ba tax na corona ba nga xam ne moom Gaskel loolu arrivé ko ah loolu nag du ñu mën a def rek wax leen rek ñu ñaan yàlla corona bi dem te ñu tamit respecté mesures barrières yi pour que corona mën fi jóge ñu mën a amaat suñu ay saison di bëre nañ doon bëre régulièrement ku ci ne la nga yaakaar ne fa nga war a yegg nga mën fa yegg quoi ne mooy passé nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokoy Grand Farlou ak ne mooy Asta Ndine depuis Thiès nuyu Khoudia Seck yaa ngi si biir Baye Fall jàmbangar Papa Cité nuyu aussi Jumboori Mbooc depuis mooy Soucoyna Dieng depuis Mauritanie samay mbokk naar yooyu ah, waaw am na solo di nuyu képp ku ñuy suivre rek ak foo mën a si àddina ndax fu ne lañ ñuy suivre à travers le monde Seydou Côte d'Ivoire bu Sa Thiès koy bëggee bu baax a baax di nuyu aw jë bu Balla Gaye 2 depuis Touba Mbacké maa koy jaar moom tamit du ma ko mos a fàtte su ma jigéen la su lépp la tuuti Yaay Sarr Khadiros Ndiaye ñoom ñëpp maa leen di bëggee di leen ñaanal jàmm xam nga encore whatsapp yi groupe Ndiaye production bu Fallou Ndiaye maa ngi leen di bëggee di nuyu groupe Idaali ñi ngi bu Assane Ndiaye xam nga groupe yëpp yëpp maa ngi leen di bëggee ku ci nekk rek groupe bu mu mën a doon maa ngi bëggee ña fa nekk di ko doxal ak waa ngonalu làmbak waa ahlu làmbak waa 101 point waa 103 point 1 euh, ngonalu làmb FM Sénégal ñu ñëpp ay fans la ñoo xam ne dañu ñuy ay sopp di seetaan li ñuy def kon amuñu seen fey waaye Cheikh Bass moom mention spéciale Cheikh bas borom Kër ma saar yow kenn du yow yow yàlla na sa jaamu yàgg waaye yàlla ñëpp am jàmm day Kumba Fall